demi-finale poids lourd demi-finale poids lourd fii ci terrain Gaal Gui waaw ndeysaan na dimanche 25 février 2024 Papa Gane Sosokh ak Grand de Papa Gane Sosokh Papa Gane Sosokh Grand Mbagnick waaw waaw Sosokh eh, eh. dan na ko Sosokh dan na ko